Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba xaade loxo law maxtaara loxo nee na tubaab fi ñu mujje maag ñoom daa mel xalu sawara wu nekk ci biir ténk te barab ba nekk ci mboob moom mooy ñax te bërëb ba nekk ci mboob lëndëm te bu ma tak ci sa kaw siiw na loolu la ci mënoo koo bàyyi itam wala alam sëriñ tuba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo nee na seen borom daa am kaamil boo xam ni góorug yàlla gu muy yabal jamono dalay woo nga dikk mu jukki ca ay këyit jox la ni la demal xàttee ko sa jamono su jamono ja jeexoo nga delloo ko jukki ba daa di teg baaraamam bu tedd ba ca dënn ba ni góor yàlla yu njëkk ya ak yu mujj yi fii la jukki ya daa juge maay kaamil ba siiw na am na bu mu nurool tuuti ca waxtaani sëriñ tuuba xool ko wala aw alam am na naar bu ma sa fekk sëriñ tuuba xaada laho laahu maxtaara laho mu toog ci jàkka ji waxtu suba mu bëgg koo jox loxo sëriñ bu ni ko ginnaaw jullik suba ba jant bi fenk dañu fee sib saafonte ginnaaw jullik suba ak ginnaaw julli tàkkusaan nuyoo fi joxe loxo lu ñu sibla lu muy koo xam ni day door a dikk siiw na am na kilifa gu mag gu mësa ñëw ci sëriñ Tuubaa xaada law maxtaar di jooy sëriñ bi ni ko mu ne ko dama ragal dugub bi daaw jeex te dugub bi ren ñoragul sëriñ law ni ko xën ma xëy na mooy fëgg ma wala doyloo ma wala jàpp ma wala wala yeneen maay sam sàq mu dul fëgg mu dul jeex noor ak nawet siiw na wa ma hindallahi baaxin saddaqallahu hasim wala alam sëriñ ma sàmba radiallahu taala anu mas naa wax sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtara lahoo maa ngi lay jebal sa bopp ak sa njabot ak saay taalibe sëriñ bi ni ko ma sàmba yàlla ku ko sant mu dolli la ku def lu baax am lu baax ko def lu bon gis lu baax te doo ca jot na ngeen def mbooloom jàkka muy seen mbooloo def aljana muy seen kër bu leen naw seen jëf te jéggiwu leen siraat ku leen wax ni maa leen gën nig leen ba mu romb leen dugg àjjana ngeen door koo nangu lu ak jaamu rëy rëy bu ma nee ca cell mooy bu ma ca noppee yàlla ni ca cell jaamu yàlla gu ma doonul dara yàlla amu ca soxla liggéeyal naa saa borom ñetti junni at saa borom door a tën aadama ak xawaa mu njëkk ma te mooy bind ci ban yéen ci mu mujj mi ngeen bokk te mooy mi malaaka yi doon sujootal alayhimu salaam saa borom fam na jaam ñépp fayema ko bu ma sooboon li yàlla bind lépp dañuy jaamu yàlla ba saa taxaw ma ni saa boroom lakkal jaam ñi mu lakk leen bu ma neexoon ñuy mooy yàlla ba saa taxaw ma ni saa boroom texeelal jaam yi mu texeel leen bu saa taxawee ba kuréel yépp jug taxaw ba kuréelu murid jug taxaw yéen xam ngeen fu leen di saa borom di atté ñu ni ko déedéet sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaalu ni pencum yalla ma yalla yalla rus na dugg ci sa kuréel bi di ko luñtu amul soxla ci seen jëfi ci sama jëm la leen di atté yobbu leen ci seen kër aljana yu kawe waaye yéen nekkuñu di lujjanti seen jëf yi kérok yowmal xiyaam siiw na li sëriñ bi wax dañuy xamal ni ci àdduna la son hisaab di amee bépp murit bu defuk mooy faaw mu gis lu metti lool lu koy faral loolee ci àdduna wala ca barsàq ku dul mooy nag dee fu ko hisaab benn yoon naka noonu kuy tuub mooy yi tuub gu sell wala aw alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba ci bu téeméer bi ak fukk ak ñett sëriñ tuuba xaadala wala maxtaaraloo mas naa wax sëriñ bàkki diouf radiallahu taala anu dama leen a bëgg dimbulé aduna ñetti fan rek la bu ngeen xeyete di leen def lu baax di wax di yene su ngeen ci saxé aduna du leen nax de du leen bet su ngeen ci saxé bañu dem ba ca kanam sama dëkk bi ñuy wax Touba des na ko def ay tabax ba mu daj kap su keroogee ku yewu bëgg gis borom tabax bobé ñu ne la juga gut waye borom loxo bu sew bi mo len fañu teud bu ko ge ba gisatu len ku len di digal gisatu len ku len di tere di len jang sama xasaayid ini, di dalal sama gani, di sarax dama sama dongay kisima ci sama jumaa ji bu ko reewgee diine parlo ngeen di dajale dajel na xam nga luy diine parlo munu ko dedet serigne touba khadalo la maxtaalu niko ko ñuy wax lamb su amé ki jital mbaram ci kër ga top ci yanu mikaya li mu summi xëy bu demee ba toog ca làmbu ji yëkkati ay loxom yëkkati baatam ba ñépp dégg ko day wax ni làmbu ji sa mbër mee fi man su këree koo sa buntu kër ba ñuy wax tuubaa kër ya ko wër ñu leen di tudd di ma tudd ak yoon ya bokkut ak wii may woote lépp dañu koy soppi mbëri lambu. kenn ku ne sëriñ ba nga yaakaar da nga koy ngem teg ca géew ba di ko tagg ni mbërum làmb siiw na sëriñ bi bari na lool lu mu daan leeral ci mujjug tuuba ni ko yonante bi sallallahu taala alay bi ali wasa bi wasalama daan defe ci wax ci mujjug jamono bu sahaaba yi waxee radiallahu taala mu ni leen jamono ji ngeen nekk moo gën jooja loolu nag na nammeelug yàlla la subhanahu wa taala walaw alam ñu ñëw ci nettali ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu sëriñ xisaa jenn radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu jébbal naa la saa bopp ak sama njaboot ak samay taalube ndax xamuma fu sa mbir yam sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu ni ko man sa mbir yamul fenn waaye lu baax am na fu mu yam xam nga lu baax fu mu yama mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko bu ngeen demee ba ca kanam ba ami doom te bu ngeen dee tukki du ngeen leen ëpp mbubb du ngeen leen ëpp aw dàll du ngeen leen ëpp mbaxana bu koroogee ñooñee doonuma ci ñoom dara siiw na ki ma doon lii bi ma ko laajee daa mel ni ni mu ko jàppe mooy bu ngeen demee ba wuuteeg ñi ñëw ca kanam wala aw alam ñu ci nangalem Serigne Touba bu téeméer bi ak fukk ak juróom am na ko faatu woon Serigne Touba xaadalaw law maxtaaraloo laaj ndax daana jaay ak jënd ñu ne ko waaw sëriñ bi wax ni looloo tax ñu humpule fañu ko teg di dugg ci biir tibbu suuf jox ndaw la ni ko jox ko ibra faal bala ngaa àgg danañu ko wan fañu ko jële siiw na taalibeb cheikh ibra faal la woon radiallahu taala anhu yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama nee na képp kuy jaay ga jenn. am na dara ci caay-caay ba mu des abu bakarin radiallahu taala anhu xëy na lu mel noonu moo tax li am kon képp kuy jaay ak jënd di ko def ni mu ware na xam ni mi ngi mel kuy jihaat te noonu la ko yonte bi waxe salallahu taala alayhi bi alihi wa salama boo ko mënu nak la gën ci yaw mooy seet la neen loo xam ni du la jural coone ëllëg ndax aduna da gàtt lool te ëllëg yàgg lool wala alam am na ku mas di ñëw ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawo amee daraja lool am ku wax ni borom barke la sëriñ bi ni bàyyi leen ku diisal jibaam mooy poosam mbooloo topp ko ngeen wax ni borom barke la bu taxoon am barke tubaab bi am barke xam ngeen ku am barke koo xam ni suñu la sànge woddu la tëral la ci sa bàmmeel nga tëdd mën a nelaw koo kii moo am barke siiw na mas nañuy jàng ba yegg si ci يبشرك الباخي بقطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سانه سرين توبا خاد له الله مختار له ني تاخاw len ni ci bayit wi la xamni ab liggéeykat jërul muy gàddu ab goppam di borom tool bi naan ko may diw fu nekk te nekk ci waare mooy jubal te tàggoog dana ko fa fekk na ku ñuy wax ma njogu njigal radiyallahu taala anhu mas naa ñëw ci serigne touba khadalahu law makhtar laho fekk ko tey ba xaar di ko dénk na la sa bopp aduna ak alakhirah bu takke takkee samay tank yaakaruma kenn ku dul yaw daa di koy jox xéewal yu bari yu ñu jëfandikoo serigne bi niko ko jox ko ma ñi ci neeg bi ñu jëfandikoo ko serigne bi neena na ma njugu ñigal njigal keroog rusloo na mag ñafa nek da di bind ab denk jox ko bind baneen téye ko siiw na sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo mas naa gonte tey ba daqaar fanaan njigal njigal gi mu doon wax léegi ba mu àggee ba nuyu ma njugg jigal radiallahu taala anu mu yóbbu ko ci am néeg mu fanaan ba mu xëyee mu ñëw nuyu ko ni ko mamadu sëriñ bi noonu lañu ko daan tudde xëy na daa am lu ma doon bëgg a def di la ci tàggu sëriñ bi ni ko lu mu doon mu nu ko daa mel ni danga munta jaxasu aku nit ma bëggoon laa defal am neeg ci tokkoor bee sëriñ bi ne ko bismillahi ba fa sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaar lawoo nekkee mu defar laaxub soow andi ko sëriñ bi ni ko dindi layu bi mu dindi ko sëriñ bi gis soow mi bari lool mu ni ko ubal mu ub sëriñ bi ni ko loolu yi ñuy wax daqaar am na mu ni ko waawaaw sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaloo ni ko demal andi ko ni ko tonni lii nekk ci kaw mu dindi sooma jox ko beneen ci ndigalam sëriñ bi di jël daqaar ja fab satalaga laal ca ndox yëngal ñaari yoon tibbu ñetti tibbu nyari di koy ubaat ni ko ma njugu njigal suuna soo bay daqaar sax ca tool ba nga sàkk ko sifika danoo xamul lu ko gën a lew mu ni ko yow de tubaab bi dana am ci yow aw yoon waaye bu ko ree gooye danuy jeex tàkk mu door laa yóbbu sëriñ Tuubaa xaadalewoo la maxtaaloo ni ko moor ma njugg njigal li nga wax sax dëgg la waaye man tubaab bi yóbbuwuma yàlla moo ma yóbbu yàlla moo ma yóbbu ma liggéey del si ngeen añ man saak ay muy aayeem wala jamonoon duggub gimiñ la dana mokkru te kenn du dégg kuur gi waaye lee ngay dajale xeexut ak ñee may dajeyali ëllëg